lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix duur prix duur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir yéen. foo rek maa la gën a xotteeku fuuf. xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xotteeku. ñu tàggoo yàqu di dee. Siteu yàlla na ko yàlla defal jàmm. Siteu na fu yàq wér. xaaj bu bëree bëri la mu def. aja père ñu père père du ma la may dara. yaa gën a xam ne nekk naa roi des arènes. billaahi walaay tàllaay. fay naa la. lamb ji lañ lay wax lamb ju neex. Modou ñëwee nu mu daal wul ñëwee jël volume bari volume mais daje xale bu wow bu mën a bëre bu ko jàng bu bëre consigne ba combat bi jeex Siteu li mu bëre yëpp dañ ko ko wax bi may ñëw ci làmb ji lan ma tegal filmu làmb ji waaw Siteu bu ñëwee ah. day mel ni ku ragal di arrière di dóor di arrière di dóor ba keroog muy am dara encadrement tey non ku wax Siteu amul encadrement bu nu gis muy ànd ak ay xale rek mais ay mag a ko wër ay mag ñoo ko wër te de toute façon affaire bi dinañ ko xoolaat ah. ah, ah bien sure dañ koy xoolaat. ah non dañuy xoolaat léegi dem nañu VAR. VAR bi bu joxe na verdict nee na nu ñëwaat mais de toute façon lan ne ca suuf louche na. mais père bala ñuy ñëw Siteu tey ni mu bëree ak état physique bi tey ni mu ñëwee Siteu dafa mel ni dafa am ñu mu bërëwaalee. non Modou ci boppam boo ko boo ko sutee boo ko sutee ah. day am problème ah. ñi ko daan ñëpp dañ ko sut boo dee xool rare rarement lay bëree ku ko sut am ci dara mais souvent du ko réussir quoi boo xoolee Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène peut-être te Eumeu Sène sax da koo daan Balla Gaye ak Bombardier mënu ko réussir. parce que dañ koo sët leen a bëre waaw mais Modou tey ni mu ñëwee encore ah, dafa ñëw maa ngi dem daani amoo dara ci làmb ji wax dong nga ci am def na ci yoo xamante ni du noonu waaw confiance bu bari ak pankay excès de poids bi poids bi dafa bari ah, ah, bari ah ñëwal ci Siteu ndax lépp fii la son combat liñ ko waroon a def loo lépp Siteu def na ko liñ ko wax loo lépp liñ ko wax lépp Siteu def na ko ba lamb ji jeex nii rek la Siteu di bëre man nii mu bëre dara bettuma ci wóoroon na ma ni bi may ñëw ci lamb ji nii la lamb ji di demee. non deux derniers combats yi ñu génn sóoraale wuñ ci woon Siteu muy ci Ama Baldé ak ci ki nga xam te ne moom mooy Boy Niang tey Modou Lo tey dékku li mu dékku. ñooñu dañoo ñemee Modou Lo. ñooñu dañuy dem dañuy ñëw naan wéy damay dem dama koy daan nangam nangam comprendre ñoom ay boy Pikine ay guerrier lañ ko affaire yi du affaire u de affaire u nandite la ay nandite ko wër Max Mbargane du dof xam na bëre ci ñi gën a mën a analyser lamb la bopp donc xam na li def mais de toute façon daal combat bi dinañ ci ñëwaat. mais combat bi dinañ ci ñëwaat coow li bari gis nañ Modou dem na deux fois Ardo ñu gis ni. dernier combat yi li mu lu su ma nee luñ ko lu ko nit musul def su ma waxee loolu mooy ah, Modou li muy def Ardo bariwul mais tey Siteu yóbbu ko deux fois Ardo loolu amul lu mu yàq ci làmb Siteu Siteu Siteu def na jaloore ba pare xam nga jaloore yi Modou Lo kenn dootu ko werenteeti li mu def ci làmb dafa bari dem ba nekk roi des arènes mais Siteu fi mu foog kenn foogu ko fa wóor waaw dan di woon noono bu Modou Lo ñëwee rek da koy dóor mu daal ah. demewul noonu ah danoo xeex te bu dee xool xeex bi Siteu moo dominé ci xeex bi bu nu songoowee dem na nañu ñaari yoon ci biti te bu nu xoolee ñaari yoon Modou sukk na bu njëkk bi benn tànk la sukk ñu jóg beneen bi beneen bi am na lu am ci làmb ji mais nag dem nan vaar techniciens yi arbitre yi nee nañu jël amul kooku mënuñu ci am de toute façon am na lu ne ca waaye na am ci mu jëlee couronne bi ba tey est-ce que tey tey lay doog a am bii problème te ñi Siteu ñi Modou Lo jot a bëreel muy Eumeu Sène di Boy Niang di Ama buñ laaj dañ naan ñoo mën Siteu ah. waaye lamb du loolu de. mais permettez Siteu bi muy wax naan ko bii du yooyu. bi bokkul ak ñi fi jaaroon kafuma daa mel ni loolu tey Siteu daa mel ni moom la andi ci kiw. wax naa ko keroog ci pencum lamb damaa ñëw booy naan ba Siteu li mu doon wax ma ne Siteu waxul dara lu dul waxi waxul waxi dof de. et puis dafa face à face face à face sportif Modou Lo moo ñëw croiser les bras comme kuy def débat politique noonu la demee woon de mais ta la mu fa waxoon loolu la wone fii Modou Lo nag moom it li mu wax li mu def la bëggoon a wone mais c'était pas possible. mais la moo tax Siteu réussir tey tenir en échec Modou Lo bu ma ko waxee donte Modou Lo ko gagné. mais avertissement mais stratégie bi mu bëree. dafa am ah merci entraîneur ñoo doon bëree tey. tey Max ak Pape Mbaye ñoo doon bëre. Max wax naa la man bi may ñëw ci làmb ji tegal nañ ma filmu làmb ji. tegal bi dama ko wax sama waa kër bu ma demee dinañ ni ma yow looy wax. mais sax loo bëri ki dem dama ko laaj ni Siteu mais ñi am na ñu ko waxoon loolu. ah mais dama ñu waxoon loolu yoon la lamb doo feru kër yi. mais Zale Lo dama ko Zale Lo dama ko laaj bërki démb Zale Lo dama ko mu ne ma Siteu ku ko ne dalal ci kaw Modou Lo combat su ko ñàkkee kooka bu ko ne dalal ci ko Modou Lo yaa ko yàq bu ñàkkee combat yaa ko ko xañ. dama ne am na expérience léegi Siteu mën naa bëre ñëpp. Siteu kan Balla Gaye. Ah ah. man daal du ma tudd kenn ah. waaye Siteu mën naa bëre ñëpp Modou ah non Modou comme que ba léegi moo yore couronne moom mooy centre rond central. ñëwuñu pour xuloo. Mm-hmm. ñëwuñu pour ñëwuñu pour tooñ ñëwuñu pour yàq tey ku ñu gis xam ne dañoo ñëw pour làmb te billaahi dama ko doon wax gars yi gëmuñu sans combat Modou daan Siteu ana ñu doon wax 35 combat mu daan. kon nga tegoon ni sans combat Modou daan Siteu. billaahi wallaahi wal kitaabi Siteu dafa mën a bëre Siteu dama dama ko yóbbu mbapat mu bëre ay ñu ko ëpp ñetti yoon mu leen di daan moo tax ma gëm ku dul Modou Lo mënu ko daan préparation dafa jóge Amérique. ma jàpp si loxo bi yóbbu ko Gambie ñu def fa deux mois ko yee quatre heures du matin dem di entraînement di si xuloo di si meroo di si duuloo di si ànd mu métti torop ñu nekk fa ay nit ñu baax ay musa Gambi Alsaan ay Bek suñu kët Tomos xam sant waa Elite yëpp saal bi Siteu billaahi li mu daj Gambi ñëw Jonwaar Siteu boo takkul gaa sax lu bëri barki Serigne Sidi Mbacke Rémi moo ko doon teel mais dañ doon sato nii mais comme sato xeex defu ko bii paa mais dafa contact ba os nit ñi nu yomb ko eh ma naan. li mu bëree amoo leen ci mbetteel. non si mbetteel xam nga amuñu si mbetteel ñëpp dañ ñëwoon Modou Lo da koy duma daan ko Modou Lo duma naa ko wala duma mu ko. Ah, mais deux fois. waaw léegi tam nañ nekk ay sportif ñu nekk ay sportif. nañ léegi nañ boole roi ak li apparenté lamb ji neex. kon ah, mais tamit gis li fi am. mais arbitre sera dañuy def recours arbitre na li mu def nii xam ngeen du yoon. bëree indi xeex est-ce que psychologiquement Siteu amul leneen lu mu doon bëree waale. barki alxuraanul karim ñun xam nañ Siteu fukki combat Modou Lô du daan Siteu te pourtant wax na leen ko ne leen ndaamu musu ko daan. ko tegoon. barki alxuraanul karim Siteu dafa entraînement bu baax ba ngeer. xam nga gars yi boo ngandee rek ñu am nga doole. waaw Modou biir la yor rek. waaw liggéey na nag mais gis nga Siteu ku ko si yab da ku ko da koo ñamagul. Siteu nan ma jox apparenté. garaan nga ah, ta wata boo waat Modou Lo mu grand nga taw naa waxal si ñooñu. nañ ma jox emprunté grand Balla. ay dëmmu lañ. man 35 combats coalition bi. grand Balla maa lay nuyu nag mais wuy ma coalition bi ngeen def laa bëgg a tas. ah coalition Guédiawaye bi ñoom ma lañu xaar maa ngi nii. Ah. non non xeexuñ Siteu bul kenn jàppale wuñu gis nga Siteu dafa am ay mbokk. nit nañ bàyyi loolu. Siteu mooy mbëru ndox mi. Siteu séeréer la si ndey séeréer si baay te gis nga làmb dafa garaaw. moo la gis boo jógeegul si làmb ji bul wax te dañ toog si biir néeg waxtaan loo xam ne du ma ko wax sax si micro. mais ñu euh, am nekk ci ñu ne am na mbër bu mag du ma tudd nag am na mbër bu mag bu nekk ci ginnaawam tey ak ñeneen ñoo ne ñu mag ak promoteur bu mag mag. buy ah. promoteur yan la. Ah, loolu dañ koo dégg. kon gars yi nañ bàyyi di tooñ tooñ baaxul. Siteu dafa ay mboq. Siteu làmb kenn ëpp ko telewu leen non déggoo Siteu dama may mbokk Siteu séeréer la nañ ma jo billaay wallaay gars yi nañ bàyyi yi ñuy wax moo loolu ma daan buñ sa gaatoon ni du daan sita Siteu mbërumul gàtt mu su ko daan te du ko mës a daan waaw léegi nag dama comme moom comme te Modou Lo doon bañ a bëre ak moom léegi nag léegi moom na ñëw ñu bëre apprentissage bu waa parce que ñaar yëpp laa bëgg a boole yow bëgg a jàmm gën Modou Lo mooy roi. bu ñu ma jox non ban roi. Ah, moom waaw mais ku ne daanu ku ñeme yàlla nga. si bi sax ay yëfu de ruus naa dama bañ a dépassé seen tey. waaw li may dégg ñaaxarañ loolu na jox Lamine Lamine Lamine men 5 millions. presse bi 5 millions bu fekkee góor la. la eh, jox. recours baa ngi ñëw. comme na ma ko suruxal ba mu rëpp. eh poxot fii moo def xaaral xaaral la jël ma Abou Ndiassé yow. mais Abou Abou tey lii combat bi nag ban jàngat ngeen ci def est-ce bariwul pression coow. non amuñ si pression ñoom ñoom pression léegi dañ maanaam dañ doon won ni nit ñi si kenn du moom si làmb. mais est-ce tamit baaxul ci si doom. si te yooyu xoolal du mënul si te gaynde la si buñ critiqué wul sax nii la mel. si ñi nekk ak moom dañ koy yokk jom di ko yokk jom di ko wax jom gaynde la jàmbaar taguma ko de. dañuy xeex maak moom ba poñante moo tax da ngay gis eh nit ñi dañ naan leen eh génn leen si ñaan ñu seen yoon new si wala ñu tax gaa di dóorante ba mu jaaxal gars yi ba nit ñi di tiit eh man leen eh nit ñi ne la ñaan ñi génn leen si parce que noonu lañ àndee si dëgg lañ ànd bi depuis nii yaayam fekkewul sama yaay fekkewul ba tey li am man xoolal si tëb ci mbapat laa commencé moom ba roi des arènes kon man sama jaañ wàcc na waaw wàcc na wàccagul lan problème ngeen amoon ci porte bi ba tax waaw ah, problème bi dañu ñëw affaire yi métti torop te man maay ma xale yi bu ñu ñëwee ñëpp dugg man ma bàyyi ñenn ñu dugg alaaji cumbukaay mu duggul man ma nar a dugg ma bàyyi ko mu dugg suñu benn pigeon naaw njaasee dem jënd ji pigeon may xaaraale pigeon bi parce que pigeon boobu warul manqué waaw te nag du si teguñu ko woon si mais ku xool fii si ta xam ne tey entraînement na waaw lamb la rek mu la anul mi si xanaa mu la waxul woon baay na bëre yor naa vidéo boo xam ne fii bu ma leen ko wonoon ngeen ba am na loom bugguma ko wax alxuraanul karim ñun ay góor la ñun ñun du ñu weer nit mais man yor naa sama téléphone fii loo xam ne bu ma ko wonoon àddina jàpp seen gémmiñ barki rasulullahi billahi wal kitaab bi am yor naa fii sama téléphone lool mais ñun dañuy suturaal nit fii laa wax si stade bi lu ñu fi def ñu ñëw dindi ko déggoo de fii dañ fii nit dafa ñëw def fi loo xam ne ma ñàkk suma ndey bu ma ko ngeen jàpp seen gémmiñ wala moo leen vidéo bi mais du ma weer man du ma weer doomu aadama moo tax ku naan ay loolu man dama waaru si yàlla waaw mais lépp luñ def dañoo ñëw dindi ko def si code parce que bëgguñ waaw dañoo ñëw dindi ko tuur ko def si code ba pare mel ni ku deful dara ñoom yéeguñu ñu ne bu pire Modou Lo da nga ko ma kañ nga gëj a gis Modou Lo andi ay galaaj di sangoog di li yow yow sa bopp kañ nga gëj a gis open press mu loolu mu mel ni open press mu mel ni sëriñu fol coloré ñoom ñooy ñoom ñoo doon open press. sëriñu fol coloré. voilà dafa ñu kon John Waar ah, moo tax nay def nànk wax naa ko ko ne doo yàlla doo yeneen ana sëñ Mor. ah mais ana non sa Touba sa lu ma ko wax dara sëñ Mor. sëñ Mor yàlla parce que li mu wax. waaw mooy ñoom ñi wax ñëpp. ñoom nañ tuub taxaw jégalu yàlla parce que dañoo waat ci yàlla te gis nga nit yàlla moo fi nekk dëgg la ñaan am na. moo tax ñoom lu ñuy wax Bambo dama dajee moom si benn laa gis ko muy waat naan nool yi ma ko eh Bambo ma ne ko ma dugg na ko Bambo ma ne ko yow doo yàlla doo yenant sëñ Mor tamit du yàlla du yenant ñooñu ay solo ju folklore lañ ñoom ñoo taxaw di ñu cóolal dégg naa sëñ Mor dafa waxoon dafay maanaam dafay dafay tëb doom dóor baay est moom est moom dóor na baay. nee na xam naa man la nee na nee na maay doomu Siteu léegi nee na waxoon dafay tëb doom dóor baay dama la nokk ñaari yoon. fan. waaw yow ku ñemewul ñëw jàmm gën na ñëwee John waar waaw yow waxula man saa. abu dama gis combat bi sonn coono gi nga ci daj mu jaral la lan la ay wax la wala lan ah? li la bi jaral ñu gis nga sonn ci jël combat ay wax yoo xam ne man Siteu dañuy toog mën na ko booy booy dee sax loolu la daan mu ne ma hé ba mu naa ah, ma ne ko man xam nga ni yow ndaama musuma daan ma ne ko ay rey la ma la waxuma la ndaama de yow ponkal man si ta buy bëre ponkal bu ko la sama xel di gën a dal parce que yàgg naa ko yóbbu mu nekk liggéey di bëre koo xam ne mën na ko ñett mu leen daan mais bu ñu fàttee si ta tafa lambul tafa gay deux bi gars yi bu gis nga gis nga gis nga père gis nga père gis nga père Tafa Gueye da leen wax wax bu am importance parce que dem tey tey gis ñu Abdou Seck gis ñu Doumbouya tey ba ngeen ñooñu ñoom ñëpp newuñu fi mais dafa mel ni ñu ngi fi kenn manqué wul man loolu laa gëm kenn manqué wul parce que Seck mu ngi Amérique mais mu ngi si làmb ji Dumbuya mu ngi Amérique mais mu ngi si làmb ji Seck dafa làmb làmb ji ba mu jeex te pourtant li mu doon waat di ko wax gis ngeen ko wala gisoo leen ko ñun gis nga ñun ay góor ñun bu ñu xasee ba wax dañuy deere parce que ñun ñu lañ àndee nekk ànd ay ndaw ànd si dëgg ànd si ngor ànd si jàppalante tey ba nga gisee ñu indi Siteu bokk ci taxe bokk ci lan nga yëg mais loolu dara ñoom dafa mel ni ñu ngi si biir man loolu gisuma ko sax su ñun famille lañu àdduna amul solo ñun dañuy xool nu mu rafetee ñu doxalee ko noonu voilà apprenti bi laa soxla ah, ah, ah,